dawda gey dawda gey waaw yaa ngi fii ci daaru musti waaw ci magal gi tey ñu ngi indi woon nag yi yaa ko indi di ko jaay njëg yi fan lañ toll waaw nay de wax dëgg yàlla njëg yi taxul sax moo seeral ko lool hmm, ndax fi ngeen boo defee deux cent boo defee deux cent we da nga am boo defee trois cent da nga am boo defee deux cent cinquante dana am hmm. wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla jaay naa si bu baax a baax ah njëg gi séerul. ah njëg gi moom uh, noonu la mën a nekk loolu sax lu yomb la. Hmm, tur bi na la. Cheikh Gueye laa tudd. Cheikh Gueye. waaw ah. fan nga bàyyi koo ñëw Darou Mouhty di jaay si. Touba laa jógee. Touba waaw. Ah. lan nga indi ay xar laa indi woon. Ah. ñaata la. njëg yi kii wu de séerul noonu de am na yu jar ay soixante. Hmm. soixante cinq mille ba quarante. quarante cinq mille ba soixante dix. waaye quarante cinq mille dina rëy. ah waaw dina baax de moom. dina baax de dinañ ko mën a jëfandikoo ci màggal gi de. waaw. yooyu ngi jar. ah waaw mi ngi jar mi ngi jar waaye jar bi de demeegul noonu de moom. xam a xam client yi ñëwul wala. client yi de ñëwagul noonu. Hmm. waaw dina ko gan ba sow ah. tey jaay ay béy. waaw ah, damaa ñëwoon tey ay béy a xar prix yi toll. prix yi yëmul fenn. prix béy 30-35 lepp am. Buy 35 ko numuy toll? Buy 35. Ah du ha. ha? du reey de. Du reey de. Buy 35 mën na fukk kilo. Ah du ko mënde. Buy 35 mën na fukk kilo de. Fan nga jëlee bay yi? Fan nga jëlee ak bay yi ñëw? Man Karachi lay jëlee. Ñëw Daru. Ah ñëw Daru Moust. Mi ngi dox. Ah mu ngi dox ndank ndank dox dëgg yàlla. Ñu ngi sant wax dëgg yàlla. Andi woon nga lu bari. Wa andi woon la lu mot ñaar fukk xar de. Hmm. Waaw. Ak i bay. Ak i bay. Lépp. Xar yi ak bi yëpp mot woon ñaar fukk. Hmm. ndax wax dëgg euh, nag yi si seen bopp war na nañoo am sax deux cent trente waaye yëf yee demee noonu man fi yéen ni daanaka deux cent trois cent deux cent cinquante mooy li gën a seer trois cent la mooy bee tey moom laa fi jaay trois cent bii bu ma gisee deux cent cinquante a jaay yi si def deux cent man Touba Mbacke waaw Touba laa jóg juróom lii ci des. waaw lii moo ci des. te bee sax jar na. Ah, bee sax jar waaw. Hmm. waaw wax dëgg yàlla suba la bés bi daanaka des lu bari. des moom kay njënd mi sax ngoon la. Hmm. yéen ñii daanaka rek wax dëgg yàlla njënd ngoon la. waaye même daral gële yi démb wax dëgg njaay mi du fii rek fa lañ xëyoon. léegi nag si suba laa ñëw fi am na daral gu nekk fële si yoonu Daaru Musti la fa nekkoon daanaka xayma téeméeri nag yi moom topp na. Hmm. waaye wax dëgg yàlla njaay na jaay nañu moom. xar it amoon na fa. waaw ginnaaw bi leen tuxu si fii mm. waaye lépp wax dëgg yàlla daal jaay nañu daal te xam naa njaay mi njënd mi sax mel na ne des na ndax xam nga ne yëf yi suba la daanaka ñuy jënd ñu bari ngoon la ak suba loolu moo si ne. mais xaalis am ngeen xaalis quand même. waaw sant nañ yàlla moom wax dëgg yàlla moom sant nañ borom dër yàlla nañ ko fekkee déwén kay la ñuy wax mm. waaye fi yéen moom sant nañ bu baax a baax. tur bi naka la. man Basirou Sow laa tudd. Basirou Sow da ngay jënd. non ñu ngi waaw pour Magal. pour Magal waaw. ñaata la wax njëg yi. njëg mu ngi toll ci fukk ak ñu ngi juróom benn. Mhm. jëm fukk juróom. fukk na. moom nag xar lool waaye bu bu xari suurool moom jafe. Hmm. Ah, waaye nag suur bi moom. dañoo dese suur daal liñ fi gis mooy xar yi lu cëpp xar yu ndaw la yu bari bari wu fi daa mel ni yu mag bari wu fi de mel ne xar yu mag yi ëpp na xar yu mag yow fi seen njëg toll ñoom entre euh, quatre-vingt ak mhm. ay soixante-dix jënd ko yow non jënd ko man dafa seer. man lu ma xaar rek waa jënd ko. waaw ah, dafa seer. non damaa gis bu suur bu ma bu ma bu ma. xar ya daal.